yéen waa galasi yéen a ñàkk xel ku leen fàbbi ginnaaw bi ma leen yëgalee ci lu leer ni ñu daje yéesu Kirist ca bant ba lenn rek laa bëgg ngeen wax ma ko ndax sàmm yoon wee tax ngeen jot xelum yàlla déedéet dangeen a dégg xabaar bu baax bi te gëm ko mbaa du ñi ngeen ñàkk xel ba tàmbalee ci xelum yàlla ba noppi yaakaara mate ci seen jëfi bopp mbaa du fitne yi ngeen daj yépp dafa nar a neen mënuma koo gëm bu leen yàlla di may xelam di leen won jalooreem ndax li ngeen sàmm yoon a tax mu def ko mbaa li ngeen dégg xabaar bu baax bi te gëm ko xoolleen ci Ibrahima mbind mi wax na ni Ibrahima gëm ne yàlla te yàlla jàppe ngëmam ni jub xamleen boog ne boroom ngëm yi rekk ñooy doomi Ibrahima mbind mi tëral na lu jiitu ne yàlla dina àtte jub ñi dul yawut ci kaw ngëm kon looloo tax mu yégal Ibrahima lu jiitu xabaar bu baax bi ne ko xeeti àddina yépp dinañu barkeel ci yow kon ñi gëm yàlla dina leen barkeel sukkandikoo ko ci seen ngëm ni mu defal Ibrahima boroom ngëm ñiy wekku ñépp ci jëfi yoon wi ñu alku lañu ndaxte bind nañu ne képp ku dul topp lépp lu ndigali yoon wi santaane yàlla na alku bir na sax ne sàmm yoon du tax kenn jub fa kanam yàlla ndaxte mbind mi tëral na ni ku jub ci kaw ngëm dinga dund waaye yoon wi laajul ngëm mbind mi neena ku mënoon a matal li yoon wi wax kon dinga dund ba faw waaye kirist jot nañu ci alkande ji yoon wi indi mu gàddul nu ko ba far alku moom ci boppam ndaxte mbind mi nee na képp ku ñu rey wekku ko ci bant alku nga noonu barke bi yàlla dig Ibrahima baawaan na ba daj ñi dul yëwut te gëm Kirist Yeesu te jot ci kaw ngëm xel mu selli mi yàlla digee mbokk yi maa ngi misaal wax ji ci jëfi doom aadama xam ngeen ni kóllëre gu nu fas ba noppi waruñu ko fecci walla ñu ci rax dara léegi nag yàlla am na lu mu dig Ibrahima ak askanam mbind mi waxul ak i sëtam mu mel ni ñu bari waaye kenn la wax ak sa askan maanaam kirist li ma ci bëgg wax mooy lii ndegam yàlla fas na kóllëreem yoonu muusaa wi feeñ ñeenti téeméeri at ak fanweer gannaaw ga du ko mën a fecci ba te bi digub yàlla ndaxte xéewal yi yàllay dige bu ñu doon jóge ci yoon wi kon ajootunu ci digg bi fekk ci kaw digg bi la ko yàlla maye Ibrahima waaw kon yoonu muusaa wi luy njariñam dañu ko wàcceel nit ñi ngir seen jàdd yoon ne fànn looloo doon wàllu yoon wi ba kereset bi ñëw moom mi ñu digoon digg bi yoon wi nag yàlla tëral na ko jaare ci ay malaaka te am ku ko jotli waaye ajuwul jotlikat su fi kenn rekk teewee te yàlla kenn la ndax kon yoonu musaa wi dafa juyoo ak li yàlla dige mukk su amoon yoon wu nit mën a sàmm ba mu jural ko dund gu sax kon sàmm yoon dina tax nit jub fa kanam yàlla waaye yoon wi tëj na ñépp ci doole bàkkaar ngir ñi gëm Yeesu Kirist jot li yàlla dige woon ci seen kaw ngëm bi ngëm Yeesu Kirist feeñagul nag yoon wi dañoo tëjoon ràpp ba kere gëm di feeñ ci noonu lanu yoon wi doon noote ba Kirist di ñëw ngir yàlla àtte nu jub ci kaw ngëm waaye léegi bi jamonoy ngëm ji ñëwee nekkatuñu ci kilifteefu yoon wi yéen ñépp doomi yàlla ngeen ndax li ngeen bokk ci kirist yéesu ci kaw ngëm yéen ñépp ñi ñu sóob ci ndox ngir wone seen bokk ci kirist solo ngeen kirist kon nag amut xaajale ci diggante yawut ak kidul yawut ci diggante jaam ak gor ci diggante góor ak jigéen yéen ñépp benn ngeen ci seen bokk ci kirist bu ngeen bokkee ci kirist kon bokk ngeen ci askanu ibrahima te jot ngeen xéewal yi ko Yàlla dig